gannaaw bi nga xam ne nag oolu woon na lu toll ba ci ñeent fukki ndaw pour ñu bokkal ci li nga xam ne moom moo di squad yi Gambia bi lii nag waral la wàññi na ñooñu le ba xam ne moom moo di ñaar fukk ak juróomi ndaw yi xam ne nag ñu ngi waajal seen fukki fan training bi xam ne nag ñu ko war am foofu ca Portugal réew ñoom dinañ am jongante pour xam seen i nag ak ñi nga xam ñoom ñoo di Congo Brazzaville li nag dina war am ci juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ci boobale nag dinañ jàkkaarloo ak ñi xam ñoom ñoo di Guinée ci fukki fan ak ñett ci weeru octobre gannaaw xam ki nga xam ne moom moo di coach bu Gambia National Scorpion di Thompson fii moom nag mu ngi waajal li xam ne moom moo di AFCON qualify bi nga xam ne nag nañ ko waraloon ko nag di mbas mi di Covid 19 gannaaw bi nga ñoom ñu jiite ci li xam ne moo di groupe D xam ne ñu ngi war a Gabon ci ñaari jongante ndaw xam ne nag bokk juróomi ndaw yi bokk xam ne moom moo Sebi di player team bi xam ne moom moo di nekk foofu ca Italie ak ki nga xam ne moom moo di Babacar Gueye di player team bi nga xam ne nag moom moo di Wiz Koblenz ca Germany Salif Senghor player team bi nga xam ne moom moo di Latin nekk foofu ca Finland Pa Modou Diagne player team bi xam ne moom moo Switzerland Robin Hodgson Jochum Jatta di player team bi xam ne nag moom moo di Saljoland Blink ca Norway ak nga xam ne moom Sonko di player team bi xam ne nag moom moo di Östersund ca Sweden Belgium eh, Souleymane Bojang Sabok 09 nekk foofu ca Norway Serif Signane eh, di player team bi nga xam ne Norway Modou Diadiou Australia Win Austra Dawda Ngom Denmark Souleymane Mar Gent Belgium Alassane Mané Jonik Zab nekk foofu ca Poland Seni Ndiaye Dunaska Streda nekk foofu ca Slovakia Ibrahima Koli Holas Verona Hilas Verona Italie Moussa Baro Bologna Italie Moussa Diawara bloc na Italie Steve Traoré club UAE Abdoulaye Signane Bergerac Belgium Hassan Cissé Zurich Switzerland Nuha Maron Koulibaly Granada Spain Modou Diop Jidda FC Saudi Arabia fu do moom nag mbiram wax nañ ne jotagut ba léegi li nga xam moom moo di visa yam Ibrahima Soxna Mosta Malta moom itamit ndaw la boo xam ne nag jotagut visa yam pour mun a tukki Mamadou Badamoussi nekk ca Fous Rabat Morocco moom it jotagut li nga xam ne moom moo di visa yam pour mun a tukki GFM ñoom nag ñu ngi wone seen naxar ne li nga xam ne nag moom moo di tere di niñ teg si li nga moom moo di tukki dem ak ñëw nag mu ngi waral ndaw yu bëri mënuñoo jot li nga xam ne nag moom moo di seen i visa pour ñu mën a teewee foofu ca eh, Portugal pour bokk ci li nga xam ne moom moo di training camp